damay sant yàlla d'abord parce que suñu candidat c'est le meilleur candidat président Macky Sall nit ku baax la nit ku gore la jullit la ku liggéey réewam la loolu nekk na facteur yi nga xam ne population bi fal nañ ko deuxièmement aussi dañ ko yàgg liggéey depuis bi ñu commencé di bindu ci liste électorale yi dans tout le Sénégal dañ cee liggéey campagne bi aussi encore dañ cee liggéey dem ci àll bi dem ci ci dëkk dëkkaan yi dem ci ruq ruqaan yi dem ci village yi gën a reculé parce que ñoom aussi gis nañu li président réalisé foofu ci piste yi ci ci éclairage ci forage ci lépp loo xamante ni vraiment dafay suqali réew président liggéey na ci kon boog tey bu ñu gañee tey vraiment bettuñu parce que président liggéey na ko parce que nit ku baax la nit ku jub la nit ku fonk réewam la nit ku liggéey réewam la voilà yi mu dikk aussi am nañ ci yaakaar parce que commencé na liggéey pour Tambacounda gis ngeen ko yéen ñëpp te ngeen seen bët war naa ko continuer l'université le projet ferroviaire aussi mi ngi ci ak yeneen programme yoo xam ne aussi encore mi ngi ci am nañu yaakaar baax a baax vraiment ci président dañ ko ñaanal